góor muy jigéen nee naa jigéen bu bëgg lu baax da ñëw seet si madame. dëgg la daal defante lu ma la du ma la dog yàlla bu la dee dog. Ah. mais nee nga jigéen ñu bëgg lu baax. Mhm. man ma ne même góor ñi bëgg lu baax nañ ma boole ak seen jabar yi. góor yi jonge yi. nañ bàyyi ma woo nañ ma dimbale nee naa leen man du ma leen jaay lii ay secret de femme la ñunu neen ci suñu biir néeg. kese nañ ma boole yi ma def ci ñoom ba ñoom yëg ne soxna yi am na lu ñu def ci ñoom. day na waar daal man seen job ñoom directement. non non non maman loolu laay bay góor ñi nañ ma boole jigéen ñi rek te seetaan naa ndax bu ne kër jéeg dafa laal lépp jigéen ci biir këram jigéen ci yaramam jigéen ci néegam jigéen ci waañam jigéen ci environnement bi jigéen ci société bi jigéen ci àddina bi en ci voilà kon nag macha allah loolu moo tax euh, du ñu tàyyi tout le temps di gëstu ci loo xam ne euh, foog naa ne dina intéressé suñu mbokk yi internet yi dina intéressé suñu mbokk yi jigéen ñi suñu sœur yi comme on dit parce que yu ñuy faral di gëstu la di ci am ay expérience di ci am ay résultat yoo xam ne ñeme nañ ko wax kenn du weddi kon nag ci loolu rek la ñuy dox ndax rus nañ wax kenn di teggi voilà ci loolu. kon bu àndee ak muy li ñuy xaar ci biir kër gi xol li sëriñ yi di sedd macha allah gan gi seen xol di sedd ndax bari na ko dugg sa kër rek respecté waat la waaye bari na ko dugg sa kër rek ne acim waaw. nit ñëw nag sa kër ñeme toog xaar nga may ko mu naan muy waaj a lekk ci yow. amna numu la gisee amna numu la numu la numu la fum la xaar fum la gis dal machallah mais amna tay ño xamné machallah bo démé ne dama yenn sax bo yeggé rek tok da ngay am envie dal di tàggoo ñibi da jéggu ne dafa wara bàyyi xel torop ci loolu ndax ñun dañu am walu buñu ñu suñu bop mais dafa am walu bo xamné suñu suñuy mbokk ñoo ko moomal seen bop kon nak machallah côté boobu mooy bëgg di ci xalaat di ci dem bu baax voilà. lu ñu jël ci di jéem a épaté parce que gis nga il faut góor ñu am suñuy feebu bopp yu ñu di téye togg bi dina neex mm-hmm. wax bi dina neex mm-hmm. di def temps ataaya bu doy waar mm-hmm. di def sa teeg ci say mantal yu kenn xamul yaa xam génnal fu la neex mais na neex ñaar bëggante ba mu dee foog ñu lewtoo ku si dekku sa morom rek yóbbu àddoo teg si jàppante wolote mel ni nango Ane wendel ma bekel ma sama kariño, oh baby.